xasida yi moo nu war a dàqal lépp lu ñuy lekk lu ne jàng xasida yi moo nu war a dàqal. ku ne xam nañu nit ñi yenn nit ñi nag yonent yi ci gën te moo ne moo ne tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ba ci yonent yi seen bopp kii. dana jiitu keppam waaye ci bindeef yi nga xam ne moom ñun ñii yëpp am na ñuy jiitu ñan ña toppatoo am na ñoo xam ne fa nga leen di gis ñu dafa dem ak dikk la ñuy fay séentu ji moo dañoo defee ne kooku moo leen sut ba ñuy kerlu fa moom yàlla yëngaloo waaye it ci barab yi mu sàkke mu sàkk yëpp waxin la waaye barab yëpp it yamuñu نحن ما له سيدنا موسى فاطلعنا عليك انك بالواد المقدس ثم سدلي نخ خل وين غي دار خل وسل قم ام نلم سيت مرن خر واي طيب، بنت ماشي وقت جامو دي نك لي جامو دي يا يا جامو دي تلوي امنا اغرنتي نخ سي ديغنتي غرنتي غي تي مال غي ني واخي موي sàkk nañ ca waxtu ñu naan ku ca ñaan yàlla yàlla naan donte waxtu bu ko ñaanee mu nangu ma ko waxoon ne ud'uuni astajib lakum fu nit ma ñaanee mu may sàkk waxtu yoo xam ne waxtu yi moom te lañ ko gën a taamu moo ne ci weer yi weer yi yi nga xam ne moo tënk ay waxtu tënk ay bés te mën na bañu tënk ci param weer yooyu itam suñu borom moo leen tuddal boppam ci alquran ne fukki weer ak yaar yi tënkam ak am na ca yenti weer yenti weer yi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi gën a dégg ñëpp njàngaleen suñu borom moo ne ku ko bëgg a zul qaada zul xijja muharram ak rajab yenti weer yooyu am na lu juróom-ñetti weer yi ci des waaye buñ demee ci aye boobu li koy wax inna iddata shuhuri inda allahi isnaa ashara shahran fi kitaabillah ba ak bi tam fala tadlimu fihinna anfusakum yéen ci weer yii waxtu yii bis yii ak barab yii bu fa kenn tooñ boppam tooñ boppam nag mooy dañ ko rëgë ëpp rëdd nag rëdd bu ko jege bu ko jege tooñ na sakkantuma di ko jéggi di jàll ku jéggi jàll moom fa ko yàgg dalee lu ko xam ka doon luuba dugg ci ak kër romb wala ndoo wa tuq ya ak kuur ya gënn ya ne la siin te dafa suuf mu fab la muy fab luubal la muy luubal ba génn fekk fa kuur ya mu yëglu ne moom mi ngi nii taxaw moo jël lañ dencoon ndax xam fu ko aw yàgg jóge daa weesu dañ ko yem la woon noonu it la tere suñu borom yi def kum la bul jéggi fii tooñ na boppam bu ko jéggee xamu fi lay jóg xamu ci kanam la koy jógee xamu ci ginnaaw la koy jóg ndax waa ji xam na ne kuur yi moom jëlewuñu fa seen bopp dañ leen faa jëlee te ëpp na genn kon ku nekk war naa yor ak kuur wa man yataadda xuduud allah faqad zalama nafsa waaye barab yi yi nga xam ne suñu borom dafa ne fonk ba ku fa jaamu yàlla mu ful ko ay yoonu yoon noonu la fa yéene dudul ak jaamu yàlla grave waxuma di ko fa def waaye bu ko yéenee képp am na lu ko ci di wa man yurid fiihi bi ilhaadin bi zulmin nuذiqhu min adhabin aliim Makka ak boo leen barab yor wàcc waayu Makka tolloo yoonu ak fenn waaye nag fépp foo xam ne fii dañ fay jaamu yàlla daal yàlla mel na day taasu ci barke ma màkka nag bokk ca loola waaye weer yi nga xam ne moom laa junj léegi muy yenti weer yooyu suñu borom ñu ne fa la tarlimu fii inna anfusakum Sayyidina Abdullah ibn Abbas nag moom dafa wax ne fa la tarlimu fii inna anfusakum at mépp la suñu borom jubloo wax rawatina nag yenti weer yooyu mu ne fii minha arbaatun xurum moom ku leen warmaal jot ab yool doonte néew ku leen warmaal da nga am nangam waaye dara am néew waaye ku ca def leneen nit dana jot ak payam yan jàll musal kon boog na ca jëf lu baax baree ab yool noonu la ca defub saxaani baree ngaañ kon yenti weer yooyu tudd naa ko mooy diggam tabaski wii nga xam ne ca la nekk te ca sunuy maam ba léegi si da dégg ñu naan yii ñun duñu laal aw digg tey baax nag ñu xam digg woowu moom tuuti ci ay martabaam ñu am yoo xam ne kenn ci yenn téeméer yi amu ko ci wala ba fësal fësal ca noonu donte limaale lañ leen ñun ñëpp moom ñooy bokk wàcc waaye waaye daa am lu mu jago bu dee ngoro ba weeru koor bi jeex dañ ko naan ji nañ nekk ba digg yu jàng ndax ñun duñ laal aw digg am na ci ñoo xam ne duñ ca watu faatu ñoo xam ne dañ dañ koo bañ a ba nga xam ne day mel ne moom digg daf leen def rëy rëy loo xam ne ci seen moom ba léegi ci duñ ko ko baal digg woowu nag dafa am lu ci lënt ñu bare danañ ci lim rek yent yëf yett ba bu njëkk ba mooy moom benn la ci al arbaatul xool moom moom yi ak weeru tabaski weeru tam xarit ñoom ñett ñooy taqaloo loo génn dugg sama ca des taqaloo mi ngi ne gaaw ak diwéer waaye rajab nag daf na day moom seen diggante daa rek xanaa ma diggante nag muharram daa rek diggante juróom benn waaye téewu ko caa bopp ndax dëkk yi gën a sori nga xam ne boo jigee yaa ngi dugg ci benn frontière bi sa Sénégal téewu ko bokk Sénégal kon benn la ci yi suñu bal doon al minha arbaatun xurum waaye ñaareel ba mooy ci weer yi nga xam ne ci la nit di waaj di aji màkk ca la bokk weer yi ñuy waaj ngir dem màkk yaar la mooy weeru kori weeru digg bii ñu nekk diggu tabaski ak fukki fan benn fan ñaari fan ñetti fan ba fukki fan ci weeru tabaski kon tam xarit kenn bi ca armal rajab kenn bi ca armal ngir fas yéene aji waaye wóor koor yi des sa armal fas yéene aji kenn du sa armal kon boobu am na lu leen jiitoo foofu tuuti lan leen jiitoo moom mooy moom ci moom lañuy ñuy armalee ngir fas yéene aji ma weer koor yi liñ ci bokk lépp nag nit dana sa waat dem joxe la ngay joxe waaj waajtaay yu dem waaye taxawut nag ñu dégg mu aram waaye weer digg moom kuy aji ku nekk te lay armal bis bu demee ba àgg Rasul Daud Abdullah ibn Abdullah weeri aj mooy shawal di korité dul qaada diggiw tabaski ak fukki fan yi jëkk ci weeru tabaski waaye ñetteel bi nga xam ne moom nag moo ko am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenti yoon la umra ji yenti yoon la umra waaye yëpp metti yépp ci weer ci weer yu dikk la ko def weer wa nga xam ne ca doon ajee màkk mooy weeru tëbëski waaye ci weeru tam weeru digg bi ci la waajoon ca la ko fasoon jëm armal bi weer bi desee ñaari fan wala ñetti fan door a door a door a dem nañ màkk ngir aji loola ba léegi si ñu jóge bari ci adduna bi मजिन रे वाच आर माले हदा रे ए अदर हाल कोन लोल ही जीतो नको या चमरो मा गयो सोला हाय सो दिया ला बाद आले ये जि मुस्ता उमरच चिलुदुल जो का मै अदिक ए yen jëlën ma sa umra ci bu ci bu ci ko moy bu ci bu lool ñu kay wax umra ko mooy boobu mu waaj woon bëgg dem Makka waaw Makka ne ko du mën a nekk ren te man du ma demoon da ngay bañ ne ko ba déwén nga dellu si te moom ba muy jóg jàmm dong ko